ndaysaan mu ngi xool Jacob Baldé xool na ko ba pare xool na ndaysaan may ma may ma may ma de silence mbokki arbit arbitre baa ngi noonu di wax ak ñaari mbëri ñu ngi leen wax beneen arbitre bi ñëw na xool yaram bi niinul mbokk yi combat bi ñëpp doon xaar combat bi ñëpp doon yaakaar combat bi ñëpp doon yaakaar ni xale bii di Papa Boy Djiné war na koo mën a laal ak Jacob Baldé combat ba taxaw na mbokk yi looy bañ xew wala mu am bul ko jàppal bés wuro wa dem këng waxu mag dem dañ taali tàgg war mbaam lu waay doon jaay diggante Papa Boy Djiné ak Jacob léegi mu lamb mbokk yi laaj na ay siisam Papa laaj na sa kopp arbitre na mbokk yi il est dimanche wala samedi 16 août 2022 stade Diop Iba Mar Production moo fi woo grand combat bi ci diggante Papa Boy Djiné ak Jacob Balde ndaysaan drapeau Tarba Mbaye Papa Boy Djiné def na sortie de libéré jéggi na génn saako yi jéggi na saako yi moom papa arbitre bi sifflé na samp na tànk yi papa booy jinne Jacob léemu na tàllal na ko loxo ñu ngi leewaatoo Papa Boy jiital jiital tànk càmmoñ Jacob Baldé jiital tànk càmmoñ Jacob dox na ci koom deme nañ wet ñu ngi demee latéral ñoom ñaar Sakho ba ngi dox ci kaw Papa fu muy mujj Pikine Guédiawaye Papa cokkaas Jacob gis na coup bi Papa Boy Djiné Jacob Baldé ñoom ñaar lu ci waay di def na wóor ndax ku ci song sa morom lamb ja mën naa jeex Jacob Baldé Papa Boy Djiné Papa tàllal na loxo fel na loxo boobu Papa Boy Djiné Jacob Baldé ndaysaan Papa Boy Djiné Jacob Baldé ñoom ñaari xale yaa ngi noonu Papa Boy Djiné Jacob Baldé ñu ngi lewaatoo ba tey dara xewagul kurpañ amagul songo amagul Papa Boy Djiné Jacob Baldé ñu ngi noonu Papa dagg na Leewtoo mu ngi demee wet Jacob karkaral na ko yegsi nañ jege nañ saaku yi ñoom ñaar Papa Boy Djiné Jacob Papa wàccee na garde bi loolu wóor na Jacob mu ngi concentré wu rek aj garde bi dox ci kaw Papa Boy Djiné ndeysaan Jacob daa bëgg a diriger combat bi ci koom arbitre bi nee na laale leen Papa daw na jëli ko baaxul ndeysaan ñoom ñaar dara xewagul Jacob gis na ko attention il xeex ndeysaan bu ñu xeexee nga gis combat bu neex Papa nga koy xool Jacob Baldé Papa Boy Djiné ndeysaan ñu ngi noonu Jacob Papa Jacob Baldé Zil Baldé moo koy indi Papa Boy Djiné ko suroon xeex nañ Papa Jacob Ndeysaan kurpañ dem na léegi est taxaw ci benn place di xeex wóor na daw na Papa Jacob dóoraat na Papa dóor na jàppante nañu Papa Boy Djiné Jacob Baldé Jacob ngi dóor ci suuf Jacob a ngi dóor jege nañ saako yi Jacob ngi dóor Papa Boy na Jacob jàppante nañu ñoom ñaar xale yi fu combat bi di mujj Papa Boy Djiné Jacob Baldé <laughs> ay waay lamba gi waay ndaysaan Papa Boy Djiné loxo ndijoor bi jàppul ci sengoor yi rek la jàpp loxo bi moom it jàppul bu baax ci sengoor yi rek la ñoom ñaar lan moo nar a xew Papa Boy Djiné Jacob Baldé Papa ndengeñ na ko ndaysaan ndengeñ na ko Jacob delloo na ko ndengeñ bi Papa Boy Djiné mu ngi jéem a fàqat bañ na mu ngi koy fàqat bañ na ndaysaan ñoom ñaar lan moo nar a xew Jacob Baldé Papa Boy Djiné mbokk yi jàppante na ñoom ñaar drapeau Tarba Mbaye la ñuy bëre ndaysaan doom Grand kaar bi daw na jàppaat ko xalaat naa ñu bal fi mbër ko wala ñu plaqué fi mbër en tout lu mën a xew combat baa ngi noonu ñu ngi ñooñu jege nañu saaku yi Jacob Baldé Papa Boy Djiné ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu papa jege na saaku yi bañ na génnaat saaku yi moom papa booy jinne dugaat na ci diggi géew bi ma ngay ndengeen ci suuf ñoom ñaar ragal bu ñu tàqalikoo ba ñëwaat ku ci nekk dina jeexal combat bi actuellement c'est normal ñoom ñaar ku ci nekk di calculer waaye ba tey dara xew Papa fay na doon na benn percute ci suuf Papa Boy Djiné door na percute ci suuf ndeysaan ñoom ñaar a ngi ci combat bi ba tey ku gën a teey mën ngaa daan sa morom Papa doon na tànta jaxabal waaye jaxabal bi wóorul ndax fi mu jàpp baaxut Jacob a ngi dóor Jacob a ngi dóor da ngay Jacob Papa Boy Djiné Jacob a ngi dóor Jacob a ngi dóor ndeysaan Jacob Baldé Papa Boy Papa Boy Djiné ak Jacob ngi dóor ndeysaan Jacob Baldé ndeysaan da ngay jàppante waaye sànq ba léegi Zakab a ngi dóor Zakab dóoraat na Zakab dóoraat na Zakab dóoraat na Zakab dóoraat na moom Zakab mais Papa jàpp na mbot na laay laay la Papa Boy Djiné na ko ndomba génn nañ arbitre bi woo na leen arbitre bi siflé waat na Papa Boy Djiné Jacob Baldé ginnaaw bi ñu bëree action am ñu génn saakuy dellu si nañ ci digg géew bi mbokk yi Papa Boy Djiné moo la féete càmmoñ Jacob Baldé moo la féete ndijoor ngemboo ngemb Fallaye Baldé ngemboo ngemb Fodé Doussouba ngemboo ngemb Ama Baldé ngemboo ngemb Zil Baldé moom Jacob Baldé ngemb yi yëpp ñi ma tudd nii moom ngay ngemb waal ndeysaan ñi nañ fulaado ñu ngi lewato ndeysaan da ko bëgg a dóor ci loxo bi téye na ci loxo bi téye na loxo bi ndeysaan Papa Boy Djiné Jacob combat bi ñaari mbër yaa ngi ci ndeysaan cokkaasaat na ndeysaan Papa Boy Djiné ak Jacob Baldé ñu ngi noonu ndeysaan ndeysaan ñu noonu ñu ngi leewaatoo combat bi bëri na calcul cokkaas na ndeysaan Jacob sànni na coup Papa fayu na ña ngay xeex ñoom ñaar Jacob Baldé Papa ndeysaan kaaw mbaa du am Papa fayu Papa fayu na Jacob pakata Papa Boy Djiné pakata na ko pakata na ko arbitre bi atte na arbitre bi atte na arbitre bi atte ndaysaan combat bi metti na ñoom ñaar ku ci ëpp condition physique yaay jeexal làmb ji ku ko ci ëpp mun ngaa daan sa adversaire ci combat bi Papa Boy Djiné résisté na ginnaaw saako yi arbitre bi sifflé Jacob daan ko ci ginnaaw saako yi dellu siwaat nañu Jacob Baldé Papa Boy ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar Papa dagg na lewtoo bi mu ngi reculer Papa Boy Djiné ak Jacob Baldé Papa Boy Djiné Jacob ñoom ñaar am na ku ci bëgg sa tànk morom ndeysaan am na ñoom ñaar ku ci bëgg sa morom. ndeysaan ñoom ñaar combat bu nar a met Papa cokkaas na Jacob remise ko ndeysaan Jacob a ngi wax ak moom lan lay wax Papa Ndeysaan Jacob Baldé Papa Boy Djiné Ndeysaan Jacob Baldé Papa Boy Djiné Ndeysaan paa ngi dóor Ndeysaan ña ngay xeex laa pataake ya jege nañ laa ilaaha illallaah moytu leen mu daanu mun naa am Ndeysaan dóor mu daanu mun ndeysaan dóor mu daanu mu naam dóor mu daanu mu naam ndeysaan daa booy jine dóor na laa ilaaha illallah bàyyi leen jàng bàyyi leen ko at bi bisib la waat na Jacob Baldé Papa Boy Djiné Papa Boy Djiné mu ngi dóor ay crochet droit yoo xamante ne bu dalee Jacob wóorul waaye combat bu neex la ñoom ñaari mbër yi ñu ngi xeex ku ci nekk ngi joxe sa morom daw na jàppante nañ ndaysaan dóor na koy percute mbaa dóor bu daanu du am ci combat bi gàllaaj yaa ngay dagg Jacob Papa Boy Papa Boy Djiné Jacob door na ko ci biir ndeysaan ndeysaan fi mu door foofu Félix Cuge taa bi jeex na ndeysaan Ibrahima Jacob a ngi noonu ndeysaan ci médecin yi cest à loxo bi gaañu gaañu bi taxu koo métti waaye ndeysaan combat bi fan lay mujj dinañ continuer wala déet en tout cas lu mën a xew mooy Jacob gaañu na ci loxo mu ngi ci ardo bi ndeysaan combat bi est-ce que dina combat bi lan moo ci xew bande bi day continuer wala déet ndaysaan diggante Jacob Baldé ak Papa Boy Djiné ginnaaw Jacob demee ci ardo bi ba Boy Djiné dindi na Jacob daa bëgg a jeexal combat bi ndax dagg-dagg bi li muy génnee ci deret dafa bari ndax tàngooru yaram bi aj na garde bi moom Jacob aj na ko ndeysaan ndeysaan Papa Boy Djiné ak Jacob ndeysaan ma ngay déplacé wu nangul taxaw benn place mon papa arbitre bi atte na arbitre bi atte deret bi combat bi mooy li ma wóor boo wóor mooy Jacob Balde blessure am bi ci loxo bi su demaatee ci ardo bi ragal naa combat am ragal naa combat ba dina mujjee yàqu arbitre bi siflé waat na Jacob Baldé Papa Boy Djiné Jacob Baldé Papa Boy Djiné Papa Boy Djiné Jacob Jacob ngi dox ci koom Papa Boy Djiné Jacob ngi dox ci koom daa bëgg a jeexal combat bi Papa Boy Djiné Jacob Jacob daw na jàpp ko tëru na Papa ngi wut fu mu jàpp amagul fu Jacob Baldé Papa Boy Djiné bañ na ko mbot na ko daan wala déet Papa bañ na Jacob wañaar na ko forcé na ko da koy wër ndomba Jacob da koy daan da daan wala déet ma ngi koy dóor ma ngay dóor Jacob ma ngay dóor ma ngay dóor ma ngay la oh. ay waa yàq na làmb ji mbokk yi gis ngeen xeer yaa ngay jolli ña xeex fi mu toll nii nag stade bi génn fi sax day doon problème waay day doon problème gis ya grenade ngay dem taxaw leen fii la presse taxaw leen fii taxaw leen fii situation bi xew ci làmb ji dox ci diggante Papa booy Djiné ak Jacob mbokk yi dañoo bëre ñoom ñaar wuree ci biir bëre ba Papa booy Djiné Jacob Baldé wër ko ndomb di ko dóor kii di euh, benn ku ànd ak Papa Boy Djiné lañ ko mën a wax daw dugg ci géew bi moo indi problème bu bari mais presse ñu ci bëree bare bari ñàkk nañ li nga xamante ne mooy seen i appareil ñu ci bëree bëri seen téléphone lañ doon liggéey ñàkk nañ seen téléphone ndax gis nañ ay nit yoo xamante ne dañoo topp ki àndoon Papa Boy Djiné di ko dóor di ko dóor vraiment mbokk yi gis ngeen situation boobu moo xew mais ñoom ñaari mbër yëpp ñu ngi ci géew bi Papa booy Djiné génnul stade bi ba léegi mu ngi ci géew bi Jacob Baldé mu ngi ci géew bi dañuy xool ñoom ñaar ban décision la arbitre yi di jël ci kaw Papa booy Djiné wala Jacob Baldé ñu ngi noonu ñu ngi noonu ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi noonu lan moo nar a xew. ayca Ibrahima. waaw lan la règlement wax ndax war nañ ko taf. c'est-à-dire que lambu xale yi. taf nañ ko lambu xale yi. xam nga man lan laa d'accord ñii ay xale lañ toll ci seen buntu àdduna. li ci am moo ci warul am tey bu fi accident amoon wala mortel am dafa jarul yéen ñëpp a ngi daw ku ci nekk bëgg a gaañu il faut ñu xoolaat lamb ji ni ñu koy organiser ñii ay xale lañ amaguñ dara ci lamb kon warul àgg fi ba lamb ji àgg fi tension bi ñun ñëpp ñu ne ci ay problème blessure yàgg na ci lamb nit mënta bëree gaañu ñëpp suñu jaboot lañu mais dara a métti wax naa ko médecin bi avant muy am scandale dina ci lamb ji li ma gis kon na leen libéré ñu dem loolu kenn daanuwul ñaari xale yi liñ bëri fii dañoo démérité jarul coow. jërëjëf xeer